dikkati na président Macky Sall nee na Amadou Ba na dem gi Barça wala Barzak daal di dakk tribune yéene kaay naan man mangaan gi ci yoon wu jaaduwul wi la ñuy waxtaanee le thème mooy yéene kaay mel ni ku naan kon mbaa bay wayul mbuus ndax nag mangaan gi li mu yàq saa si tembe ci réew mi ndax mënees na koo defar Zeynab Sankara ci yéene kaay bi naan maan njombe gi day ci mangaan gi mi ngi mel ni tulleeg màlle ñaari téeméer juróom ñaar fukk ak juróom ci ay ndaw yoo xam ne bar ñi la ñu daal di bàyyee koo daal dinañuy faatu nag ci géej gi fayallaahu ñetti téeméer la ñu woon yoo ci gaal gu suux lankit ko di jee naan kon ma ñëw waxtu wi senegal fi mu toll ma ni la xale yi ku leen juróon yërëm leen la xew ca bar ñi moom daal dinay gi dayoo ñetti téeméer ci xale yoo xam ne dañoo daal di yéegoon ci gaal daanaka ñaar fukk ak lu tegus lëf ñoo ca daal di teer la ca des lépp waxtu wi ñi ngi ci géej gi léte mooy yéeni kaay naan kon am na kër goo xam ne juróom-ñaar ci xale ma ni la faatu nan ca quartier yépp nekk ca bar ñi daanaka ku ci nekk am nga koo faatule am na génn waajur woo xam ne ñett ci ay doomam ñoo ca faatu naan dem gi na dakk du Diop cuun bokk ci napp gi ne famille yi nga xam ne ñooy bàyyi seen doom ñiy des ci gaal gi daanaka lu ji njaag ñoom ñooy njaag lanket ko di jee naan kon en tout cas président Macky Sall nee na rek marine bi ci boppam ñaar fukk ak juróom benn ci gaal yi doon dem Espagne daal dina leen di waññi lu toll ci ñetti junni juróom-ñetti téeméer fanweer ak juróom-ñetti ci màngaankat mu dëj leen Sénégal lu toll ci ñaari téeméer ñaar fukk ak ñeent ci ay soxna bokk nañ ca ñaari téeméer ak benn ci ay mineur bokk ca moom Espagne ci boppam daal di andi daar daar ci Sénégal ñeent fukk ci policier ñeent ci ay bato benn hélicoptère ak benn avion ngir xool bu baax a baax waxi xale yi duñu demati le soleil yéen a nan maan en tout cas nguuru Sénégal jël na ay mesures ci dem gi nga xam ne mi ngi bëgg faagaagal xale yi le témoin yéen a nan kon xanaa faagaagal ba nuppi kay ndax xale yi Sénégal man la ñi ngi jeex ci yoonu màngaan gi laaj wa mooy lan la xale yi di daw ci seenum réew ba mu jaral leen tay la seen bakkan daar daar turbine yéen a kaay kon xanaa doo xool fi ne fii ci Sénégal wér yaram ci boppam moo ne nekk urgence boo moytuwul nag mi ngi sukuraat moom wér gu yaram delloo si ko nag mu daal di doxaat ak wér gu yaram ndax mën naa nekk moom l'hôpital bu Sénégal ñu ne déetawaay njàng meeg njàngale mi nga xam ne moo doon def xam-xam ci ndongo yi furaas mi ngi tàmbalee yàqu nag ci réew mi direct ci news naan kon Sénégal mooy cin luy bax amul ruq lu sedd fi ne nag réew mi ci boppam moo daal di yëngu daara yu kawe yeeg lycée yi gréew baa ngi ca mel ni tulleeg màlle ñu ne déetawaay yoon ñiy atte daal di soobu ci gréew goo xam ne maar day taali ci njàng mu suufe bi moom journée morte amal nañ ko ci daara yi kawe yi ñiy sàkk ubbik université ministère fonction publique nag waa justice joxoñ ko baaraam ak tuuma moom galo ba waxtu woow moom sàll ngaari lam tooro bur géde daal ma ngay coppet ci bii teg ci bee bee ne ko raja l'évidence yéeni kaay naan koon njëkkeel ca douane njiit la daal dinañ koy teggi teg fee le point naan koon moo ne day jéey mënoon na lool ci wàlluk douane l'évidence naan koon ma ni la ministère de l'intérieur yi ay weer a des ci élection yi waaye ñi ngi andi ay coppite yoo xam ne xel mën na caa teey tribune yéeni kaay naan ko déet opposition bi daal luy njiit njaag ñooy njaag ci réewum Sénégal moom président Macky Sall nag yor bigam ak fëtëram rax ci dolli yore gomeem Sall ngay bind Sall ngay faase l'opposition bi toog di ko seetaan ci def ko saf ci réew mi bés nag bu ñu demee ci ay élection luñ ca am na nu jël yéeni kaayub des médias bi naan opposition bi daal di tasaaroo ku ne jaar sak yoon te ku it bëgg nekk président ci réew mi waxtu woow ñi ngi seetaan président Macky Sall nag mu jël direction général des élections def ca la ca saf ñu ne déeta waay nag moom Sall jël Sénat teg ca ña ko saf Fatou Abdou Ndiaye ci yéeni kaay bi naan xam nga nangu ni nga xam ne Sénat nii lañ ko tëralee ay politique ñu daal di leen di dàbb ci biir Sénat gii opposition bi bu ko nangoo na nangu nag dogal gu bàyyeekoo ci élection yi gannaaw bu jeexee fa yallaaxu faatu Abdou njaay naan leen xam ngeen Sénat gii ba nu fi dindee duudu ndiir ak tey daanaka opposition bi moom da cee yeyul sax yàbbi ñu andi fi ñoo xam ne nag ay politiciens lañu opposition bi ne pat lu mooy Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp mi nga xam ne daal di nay ñaawlu tabbinug juge Abdoulaye Sylla gisoo kenn ci opposition bi mu wax gaay nekk ci opposition moom daal daanaka wóoru parrainage moo leen yitteel jamono ji Fatou Abdou Ndiaye naan leen mani la ana yeewi askan week Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi nga xam ne fi mu ne lii lépp ñu daal di teg ngir liquider ko la ña àndoon ak moom nag ne pat lii dëgg-dëgg mën a feeñal lu bari ci seen ànduk démb ga yéeni kaayib dee média bi naan maan en tout cas gaa yaa nga naan président Macky Sall sa décret bi na dak ndax décret bi nga falee membre Sénat yu bees yi day daal di caxat yee yoonu réewum Sénégal ñeentu ñoo xam ne mani la fal nga leen te ku ci nekk ci ñoom mën na tax ñu daal di dakkal Sénat bi fi mu ne na dak lakk mu njaay si sa njiital ONG 3D niki noonu it yeneen ci structure yu bokk ci société civile ña nga naan président Macky Sall na daal di gàntal décret bi laata waa Sénat bi nag di prêter serment di xamle ni nag seen palin gii mën naa tàmbali l'info yéene kaay naan man union interparlementaire ak parlementaire yi kalaame gën leen kalaame woon jàpp ak Ousmane Sonko gi tontu nañ ci la ñu xamal président Macky Sall mooy na bàyyi Ousmane Sonko mu bokk ci yile élection xam nga élection yu Sénégal gii dafa war a nekk élection yoo xam ne ñëppay bokk ba ci Ousmane Sonko mani la dañ koo war a bàyyi mu bokk ci élection yi ci réewum Sénégal mooy dëgg turbine yéen a kaay naan kon en tout cas cell ma la waxuma la Ousmane Sonko waaye daanaka opposition bi ci boppam ñoo dul bokk ci la élection tabbinuk Sénat gii bu ñu ko bàyyee mu wëy sàll lu ko neex lay def ci élection yi te bu boobaa kenn du wax kenn Walf Quotidien naan kon monte opposition bi day mi ngi taxawal ndànk-ndànk ab coalition turbine yéen a kaay naan kon nanu yëy yàbbi ci Sénat bi mooy dëgg yéen a kaay des médias bi naan maan waxtu woowu ñoom APR Mbàkke ci boppam ña ngay tas tasaaroo directeur général bu seneps ma ngay daal di dal ci kaw galo ba moom tribune naan maan ñoo bokk gétt ga waaye xajoo tunu ci biir gétt gi ci boppam 24 heures yéen kaay naan kon en tout cas coppite gi ñuy woo suñ ko defeet la fi newoon rek coppite ci boppam moo dul am ci réewum Sénégal te looloy dëgg waxtu woowu soxna Fat Bintou Pouy daal dinay soobu ci élection bu amadu Ba bi lu toll ci ñetti junni ci parrainage mu daal di koy jébbale ca Ndindi mu xam leen nag président Macky Sall ak gëtëm ak yéeneem gi mu teg ci Amadou Ba la ñuy daal di mottali waaye tam coppite gi yéene Sénégal yéene ko Touba it loolee la ñu bëgg mottali te pour mu mat nag foog président Macky Sall daal boole njaboot gi gars yi doon benn ngir élection yi mën a mat tribune yéene kaay mel ni ku naan kon na ko njëkkee ca Mbàkke de ndax Mbàkke moom waa APR yaa ngi fay xiiroo ak di ŋaayoo l'observateur naan kon aayul ba dab lii ca diwaanu Matam jibi mii coroom sa da ko bàyyi mu lu ko bëgg fayu ci moom jël rakku coro ba daal di kidnappé fexe ba coro ba ñëw ngir xettali rakk ja jibi deful lu dul daal di jël daal di jàpp fexe ba siq ak moom aku ñaawteef